wa marhaban bikum ma al anbiya salaam mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ànd yéen ci qissa daawud alayhi salaam mbokk jullit yi tey suñu dars mooy daawud saahibu sawt aljamil yenent yàlla daawut bokkoon na ci ki kéemaan ak yi ko yàlla defal mooy borom baat bu neex la woon borom baat bu rafet qad anama allahu alayhi bi sawt fi gaayati alxusn sunu borom tabaraka wa taala bokkoon na ci xéewal yi mu defal daawud mooy yàlla mayko ko baat boo xam ne jiggi na dayo ci neexay walla ci taar fa kaana ida qaraa bi sawtihi aljamil fi سمعته الجبال والطيور فتسبح معه في الليل والنهار bokkoon na ci xéewal yooyu borom bi defal daawud ci baat bu neex boobu ba yéeme ba jéggi dayo su daan jàng téere boobu nga xam ne moom la ko borom bi joxoon wàcce woon ko ci moom mbokk yi montagne yi dañ daan déglu Daawud picc yi dañ ko daan déglu waaye yemuñu woon sax ci déglu ko dañ daan répété aaya yi di ànd ak moom loolu nag xam ngeen ne dëgg-dëgg ndax neexaay moo tax yonent bi ba mu déggee kenn ci saxaaba yi muy jàng alxuraan mu ne ko kii de dañ kaa jox benn flip ci filibu daawuda yi ndax ni mu daan jànge sabuur neex na neexaay goo xam ne montagne yi sax dañuy déglu picc yi dañuy wàcc ci garab yi wër ko di déglu ànd ak moom waaye duñ ci yem léeg nga ji nga nekk ci jàkka ci ginnaaw benn imaam nga nekk ci benn ginnaaw imaam imaam bi di jàng alquran alquran bi day neex ci ginnaaw nga gis gaa yi ñu mën a téye seen bopp moo tax am na benn imaam ci kaaba gi gaa yi dañoo mujj dem sax ba tere ko jiiti ndax nit ñi ni ñuy fecce ci ginnaawam di ànd ak moom baat bu neex léeg-léeg xéewali yàlla di defal nit ci jàngkat yi da nga ci gis ndeysaan jàngkat boo xam ne ñu bare bari duñ mën a julli ci ginnaawam ndax baat bu neex bi loolu nag yàlla da ko dama yoon yonent yàlla daawud sunu boroom nettali ñu loolu nga xam ne bu daan jàng alquran montagne yi ak picc yi dañ daan ànd ak moom di sàbbaal guddi ak bëccëg ci suratul anbiya aya 79 borom bi ne wa saxarna maa daawuda aljibal yusabbixna waltayra wa kunna failin borom bi ne maay ki tàggatoon booleeg daawud muy ànd ak moom fu mu toll aljibal montagne yi yàlla ne maa tàggat montagne yi ñuy ànd ak daawuda fu mu toll yu sabbix na di sabbaal wa tayra ak picc yi borom bi ne wa kunna faailin maay ki nga xam ne maa ko def kon gis ngeen daawud kéemtaan yi ko yàlla defal comme yeneen yonent yi ñii ay yat ibrahima yàlla indil ko safara si mu fay Isaa li jàngoon ngeen xissaam di dekkil ay néew di faj ay malaat di sànni suuf muy nekk ay picc amma daawud alayhi salaatu wasalaam moom yàlla nga ko defaloon baat bu neex boo xam ne su daan jàng zabuur montagne yi ak picc yi ànd ak moom di sabbal guddi ak bëccëg sunu borom ne maa ngi ne ki waxoon yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayra yéen doj yi ànd leen ak moom di ko sàbbaaleloo ak picc yi qad wahabahu wahaba daawud alayhi salaam min assawti aljamil ma lam yutihi ahad bihaysu innahu kaana ida tarannama bi qiraati kitaabihi yaqifu tayr fi lhawa yurajjiu bitarjiihi wa yuraddid wa yusabbih bi tasbihihi wa kadhalika aljibaal tujibuhu wa tusabbihu maahu kulla kullama sabbaha bukratan wa asiya mu ne daawud ci xéewal yooyu nga xam ne la ko yàlla may ci baat bu neex boo xam ne joxuñu ko kenn ci àddina ma laak nag yonent su tàmbali woon jàng bu doon yéen la da ngeen naan tajwid mu tàmbali woon neexal baat bi picc yi dañuy taxaw ci kaw asamaan bi dañuy ñëw ba jege ko taxaw ci ngelaw li di ànd ak moom mel ne buy wax ñuy répété ndax neexaayu baat bi wa yuraddid su waxee picc yi répété bu fekkee da doon sàbbaal picc yi bu waxee baat yi picc yi dañuy répété baat yi borom bi yemul ci loolu waaye mu ne wa kadhalika al jibal naka loolu ak montagne yi wala montagne tujibuhu montagne yoo xam dañ koy ton su sàbbaalee montagne yi ton su waxee montagne yi répété mu ne yema rawatina nag bu dee da doon sàbbaal yàlla montagne yi dañuy ànd ak moom te loolu suba ak ngoon mu ne wa qaala abdullahi ibnu amir utiya daawud min xusni sawt maa lam yuti ahad qat kenn ci borom xam-xam yi nee na mi ngi tudd abdullahi ibnu amir nee na yàlla tabaraka wa taala jox na daawud yonentam ci baat bu neex boo xam ne joxu ko kenn mukk mu ne hatta in kaana tayru wal wuhuush yan akifu xawlahu rabu àll yi ak picc yi dañuy bóof ci wetam xam ngeen lan mooy bóof mooy toog ni rëpp di ko déglu ni ginaar di bóofe nen noonu la ñuy toogee bóof ci wetam léeg nga gis picc yi di daanu ndax mar walla xiif di dee ndax bugg ñoo dem ndax daaw dama ngi jàng dana leen jaral ñu dee ndax mar wala xiif atsan wa juuan xatta yamuutu atsan wa juuan mu ne picc yi ak rab yi dañuy toog ci wetam buy jàng kenn du buuse mu ne léeg-léeg sax nga gis am yu dee ci wetam ndax mar wala xiif lan moo tax parce que bëgguñu dem am lu leen raw allahu akbar mbokk yàlla moo mun a maye ku yàlla may rek nga giijal ndax yàlla moom lépp yuusuf lan la ko yàlla mayoon laqad uutiyee nisful jamal moo dàqoon ñëpp daawuda lan la ko yàlla may moo gën a neex baat ñëpp allahu akbar yonent bu nekk ak li ko yàlla may kële dañ naan taar la yàlla may keroog ba jigéen ñi gisee yuusuf dañoo xotti seeni loxo te yëguñu ne ñu ngi dagg seeni seeni loxo ak paaka yi amma daawuda moom baat bu neex bi picc yi dañ ko daan wër bay dee xiif ak mar ak rabu àll yi waaye du ñu buuse mu ne xatta inna nahaar inna al anhaar la taqif mu ne léeg sax daawuda di jàng ba romb dex dex gi taxaw dootul yëngatu hmm, allahu gi taxaw dootul yëngatu mu ne moo tax yonent bi ne xuffifa ala daawud alayhi salaam qiraatul quraan sunu borom yombaloon na oyofaloon na ci daawud jàng alquran baatu alquran fi li muy tekk mooy zabuur fa kaana jamaalu sawtihi allazi wahabahu llahu iyaahu kaana yaqra'u zabuur bi sura laa taxtatiru ala qalbi bashar wa zalika li anna allah azza wa jal xafafahu alayhi mu ne nu ko neex ci baat boobu yàlla may ko nga xam ne yàlla may ko kenn ku dul moom su daan jàng téere bii di zabu da koy jàng mu gaaw lool loo xam ne kenn mënul xalaat gaawaay googu ak neexaay boobu doomu aadama mënu ko xalaat lu tax ndax yàlla moo ko yombaloon léeg nga dégg ñu ne Ousmane Ibn Affan da daan naafile kaamil bi benn guddi loolu yombal la léeg nga gis ci julli am na ñoo xam ne mokkal gi ñu mokkal yàlla yombalal na leen ba nga xam ne mën nañ laa jiite hisib doo sensible te xaw nga mais am na ñoo xam ne buñ la jiite woon sax qul a'udhu bi rabbil falaq nga découragé loolu yàlla moo koy may daawud bokkoon na ci li ko yàlla may bu nee comme guddi mu ne waajal leen sama waruwaay waay yi ngeen defal ma ci làmp balaa gaa yi defar war wi ba préparé ko ba pare mu jàng zabur mu jeex bi muy joxe ndigal ne waajal leen ma damay waaj a génn balaa gaa yi indi daabaa bi ba teg yi ñuy teg ba takk yi ñu koy takk mu jàng téere bi mu jeex mooy li yàllante bi wax ne yàlla da ko ko oyofaloon mu ne xufifa ala daawud alayhi salaam alquran fa kaana ya'muru bi dawaabihi fa tusraj fa tusraj fa yaqra'u alquran qabla an tusraja dawaabuhu wala yaakulu illa min amali yadihi bokkoon na ci li yàlla defal xéewal daawud daawud lekk lu dul ñaqam jàngeen xadis bi yonent bi saa sallam liggéey leen comme mel mel ne daawud ni ngeen ne daawud daaw lekk lu dul ñaqam allahu akbar lim daan dundee moom moo koy liggéey loolu dëgg-dëgg xéewal weesuwu ko taraanga weesuwu ko ndax lépp lu daan dunde mooy moo koy liggéey leen saa nga dégg nit ñi bu ñuy tagg kenn ñu ne lan ñu ne ñaqam lay lekk ñaqam kii tamit ñu ne walla yakulu illa min amali yadihi daawul lekk daawul dundee lu dul loo xam ne moo ko liggéey ak loxoom mu ne fii ci hadis bi hadis bi nga xam ne mu ngi ci sahih Bukhari yi fii bi ne xuffifa ala daawud alayhi salaam alquran mu ne wal maqsudu bil quran huna azzabuur mu ne fii ci baat bii de alquran ci hadis bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fii lim fi nam wax ci daawud lim doon jàng mu ne zabuur la waaye am na leneen yu ñuy xàmmee daawud mu ne bukaa'uhu alayhi salaam bukaa'ul awaab nee na ay jooyam bari woon na lool léeg ci boroom xam-xam yi nga dégg ñu ne aadama bi mu wàccee ci kaw suuf toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan ndax rus yàlla tabaraka wa ñu ne bu nu boolee doomu aadama yëpp lu ñu jooy danañ fekk aadama moo leen ëpp lu mu jooy ngir yàlla baal ko benn bàkkaar boobu mu defoon ñu ne bu boolee jooyi aadama ak jooyi nit ñi danañ fekk daawuda moo ëpp lu mu jooy ndax lenn ci borom xam-xam ne nañ daawuda dafa jooy di jooy ba fi mu daan sujjóot di jooy dafa sax ñax sax ñax ndax ndox mu bari mu fa wàcc wala ñu ne inna dawaabu inna daawud al bukka al mooy ke nga xam ne jooykat la woon kuy dellu ci boroomam guddi ak bëccëg ne daawud allazi mooy ki nga xam ne maa akala taaman illa ballalahu bi dumuihi daawuda musul lekk ñam lu dul ñaw bala mu koy lekk dana ko jooy ba mu tooy xepp mu doog ko lekk waaw bu tiimoon ñoom di ko lekk balaa muy lekk ñaw wi dana ko jooy ba mu tooy xepp mu doog ko lekk wa ma shariba bi dumu'i mustanaan kopp wala ab kopp wala ab kaas lu dul balaa muy naan ndox moom walla loolu dana ko sotti ay rongoñ ba mu fees dell mu doog a naan yarhamukallah kon li borom xam-xam yi ne moo ëpp ci nit ñi li mu jooy kon dëgg na yenu na maanaa allahu akbar ñun fii buñ teemee buñ tiimee lekk lu ñuy def dañuy reetaan ah dañuy kontaan daaw de bu tiimee lekk bala muy lekk day jooy lu tax parce que xam ne lekk bi muy lekk yàlla mook ko may te tey fii mu toog di ko lekk am na ñu ko amut allahu akbar mus naa dend ak benn boroom xam-xam ñuy añ ñuy añ ba caag benn waay na cey waay ak a neex rek boroom xam boobu mu yuuxu daanu ne ko góor gi lan la mu ne kii dafa neex ñu ne ko waaw mu ne ñi ko amul nag sama xel daa dem ci ñi ko amul oh keroog bi daanaka ñu ngi añ waaye ñun ñëpp guub bi dafa deñ ci ñun ndax ni mu yuuxoo daanu gis nga moo tax doomu aadama war nga sant yàlla lu bari yaa ngi dox am na ñu doxut yaa ngi dégg ah? am na ñu déggut yaa ngi gis am na ñu gisut yaa ngi wax am na ñu waxut am ngay loxo am na ñu amul loxo am nga tànk am na ko amul tànk yaa ngi nelaw am na koo xam ne bu tëddee du nelaw allahu akbar ah xoolal yow lépp li la yomb ba nga xeeb loolu bañ sant yàlla am na ku ne seew sa wet pour jot ci ndeysaan ndeysaan moo ne mësta lekk lu daa jooy lekk ba mu fees mu doog a lekk mësta tiim naan lu dul dana jaxase ak naan boobu ay rongoñ ba mu fees daawud alayhi salaam allazi kaana yaqul ah ah min azabillah allahu akbar daan toog bu caag rek mu ne wooyi wooyi ñu ne ko lan la mu ne mbugalam yàlla te ab yonent la kat yàllaa ko tànn yónni ko de day toog ba caag mu yuuxu wooy wooyi ñu ko lan la mu ne mbugalam yàlla mbugalam yàlla laa xalaat allahu akbar waay waay nga waay nun ah آه قبل أن لا تنفع أواه wóoy wóoy ñu ne ko lan la mu ne dama yuuxu balaa balaa wees allahu akbar dama balaa yuuxu wees wóoy wóoy ñu ne ko lan la mu ne mbugalam yàlla wóoy wóoy ñu ne ko lan la mu ne dama yuuxu balaa yuuxu wees ndeke yuuxu dina wees su toogee ba caag mu ne yaa rab inni la astati u xarra samsik yow yàlla sa tàngaayu jant bi sax man mënuma ko supporter yow yàlla sa tàngaayu jant bi mënuma koo supporter fa kayfa astati u xarr naarak yow yàlla sa jant bi ma supporter tàngaay bi kon naka laa mën a supporter safara ëllëg hmm. allahu akbar wallahi dëgg la fii nu nekk léeg-léeg ñu nekk ci tàngaay doomu aadama bi mu nekk ci biir néegam guddi tàngaay bi lëjal ko ba du mun a nelaw wala mu simmeeku ay yéreem ba dese kilot bu dee borom kër gi la ba tey mënul nelaw mu jël uppukaay ba tey mënul nelaw léeg mu taal ventilateur bi ventilateur bi daw daw daw daw ba xiir au lieu mu jox ko ngelaw lu sedd léegi lu mu koy indil ah? ngelaw lu tàng waa ji génn biir kër gi utali géej lu mu koy uti seddaay loolu lan moo ko def te waxuma sax ne bëccëg la de waxuma bëccëg de guddi laa wax tàngaay la yàlla tàngal àddina bi guddi te jant bi génnut ba nit ñi mënuñu toog seen biir kër yi léegi nag ci jamono jant xoolal doomu aadama di dox ay kilomètres moom kenn ci diggu njolloor li yorul parasol yorul dara gisul garab ci àll ndànd foy foy tàngaay boobu kan moo ko mën a résister te tàngaay boobu du ay matt du safara bu ñu taal jant bi kese moo tàng tiim la léeg-léeg ngay def nga dem ci àll bi nga gis ay picc yu naaw ba ci àgg rek daanu ay rab yu àll yoo xam dañuy daw ba ci àgg daanu ndax tàngaay moo tax daaw da doon yuux ah ah yow sama borom munu maa muñ sa tàngaayu jant naka laay muñee sama borom munu maa muñ jant bii kon naka laay muñee ëllëg tàngaayu safara lii moo waral ndeke daawuda bari jooy wallahi mbokk yi li doon jooyloo daawuda jar naa jooy mu ne yaa rab yow sama boroom inni laa astati simaa sawti rahmatik yow yàlla sa kàddu gi nga xam ne kàddu yërmande la attanuma ko munuma koo dékku mooy dënu dënu dënu yërmande yàlla la ndax buy dënu lan mooy wàcc suy dënu luy wàcc taw taw lan la ay xeer taw lan ay xeer taw ndox la ndox yërmande yàlla la waaye xoolal kàddu gi muy àndal dënu mu ne yow yàlla dënu gi mënuma ko àttan wallaahi mos naa dem Sédhiou dënu bi dënu courant bi dafa maas sama ndigg li ba ci tànk yi ñi ma àndaloon am ñu daanu man ma dali fële ñëpp a daw fi ñu nekkoon ñëpp a daw kenn desu fa kër gi ñu nekkoon làmp yépp coupé courant bi sute keroog sunu borom moo nu musal man maa ngi sentir dënu bi fi ma laal ci sama ndigg li ba ci sama tànk yi la dënu bi laal ci benn banc traverse laa toogoon mais après ñëpp ci suuf lañ ma gis ñi toogoon ci banc boobu ñëpp a daanu ndeke foofu buy fay buy taw dañu war a fay portable yi ñun waxoon nañ ko ñun ñëpp ñu fay jigéen ñi ñu nekkaloon nga xam ne ñoo doon togg daf ci am koo xam ne dafa jël portable am fayu ko ba pare mu teg ko ci banc bi nu toog bis boobu ba léegi dama ko fàtte kër googu saa yi ñu demee Casamance say Sédhiou ci kër googu la ñuy dal saa yi ma duggee ci kër googu sama xel li muy njëkk a dem mooy sunu dënu keroog bi te loolu yërmande yàlla la mu ne yow yàlla mënumaa attan déglu sa kàddu yërmande te mooy dënu fa kayfa astati u simaa i sawti xadabik kon yàlla boo meree ëllëg naka laa koy dékkoo su fekkee bi nga meree bi nga amee yërmande la sa kàddu googu dëgër ba kenn dëkk mënu ko dégg kon yàlla yow bis boo meree naka lay mel yàlla boo meree nu muy mel allahu akbar mbokki jullit yi euh, li mooy dar su tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu jéggal ñu daawuda wax na fi ay wax yoo xam ne ñun ñëpp noo ci war a xalaat ñun ñëpp noo ko war a dégg ñun ñëpp ñoo ci war a def ay njàngat yow sama boroom maa ngi yuux maa ngi yuuxu di yuuxu balaa yuuxu jot maa ngi yuuxu maa ngi yuuxu ci mbugalum yàlla yow yàlla mënumaa muñ tàngaayi jant naka laay muñee ëllëg tàngaayu safara yow yàlla sa kàddu gii di kàddu yërmande muy dënu mënuma koo dékku ëllëg yow yàlla boo meree booy wax ak man naka laa koy dékku loolu kenn ku nekk si ñun war nga ci njàngat war nga ci war nga ko déglu bu baax a baax war nga ko xalaat ndax kii dib yonent dib daawud la mu attanul ndax yow mii di mbindeef simple cundung ah ndax yow mun nga ko attan noonu nga ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na luñ ci war a leeralaat